si loolu lañ koy inviter parce que xam nga tay mom su doon sama wayjur limako ma ko digal laa koy digal so nekké fenn ba ñepp taxaw ne la ñu amana ni sax nit ñi yëkëti yëkkati sax ne doyatooñu wul mbëri la mais so nekké fenn ba ñepp ne ah wax deug neex yalla bëgg nañ lu bees sortir par la grande porte moy aussi sa mandat su jeexee suñ la doon reconduire sax nga ne len wax deug neex yalla may len ndaw yi ñu ñëw liggéey mais ak moom aussi li mu def ci làmb ak fi mu ko jëlee euh, quoi qu'on dise am na fu mu jëlee làmb am na fu mu ko yóbboo te ku ne xam ne ni <laughs> gérer millier làmb dafa xaw a jafe wala da gis ne dafa am ay manquement lu mu waroon def te def ko. waaw non xam nga tey doomu aadama mënoo motal lépp da def sa morom ñëw eggali moo tax tey tey jii démocratie si yenn dëkk yu mag yëpp imposé nit ñi ba si Sénégal sax ne soo defee benn def ñaar da ngay may keneen mu ñëw ndax nit ki vision la. sa vision dafa am foo koy jëlee am foo koy yóbbu mais soo tàmbalee loolu dina amaat ñeneen ñu amaat beneen vision buy gën yow sa bos comme li ñuy wax si wolof rek lu baax su demee lu gën mooy ñëw kon dañuy ñaan yàlla rek moom def na lu baax ñun suñu ñëwee ñu def lu gën. waaw xam nga tey man fi ma koy gën a gën a fi ma non du ma ne sax moom waa CNG fi ñu leen di gën a condamné mooy problème communication benn ñaareel bi ñoom ñoo ngi def lépp pour protéger les lutteurs mais si wetu lutteurs yi dafa am ñeneen ñu ñu war a protéger.

wala mu nek ci tolof tolof kenn dotul dajala ay caméra diko diko sakul ndimbal tay manager bi su démé ba nga xamanteni day obligé yoré lu mot téméri mbeur ci écurie bu nek mu concentré wu dess écurie am te diko fa continuer di dakk wërsegam ñu protéger ko si leneen li top moy euh entraîneur bi nga xamanteni moy yewu fajar di dem entraînement di and ak mbeur mi suy ñibbi 1000 francs di teuk pour dem ñibbi ci njabotam moom suy wàcc mu amaale dara wala weer bu dee mu am dara lu mu jënd saako ceeb ak dawlin bàyyi ko biir këram. waa xam nga tey jii comme li ma waxoon fële rek arbitre yi génn nañ ñëw réclamer mooy problème mu communication bi ndax foofu mënoon nañ leen woo ci table waxtaan donte nee nañ woo nañ leen mais ñoom dañoo am seen décision ne ñoom dañoo yàgg a kaas di bind te kenn mësu leen a dégg ñoom kaasuñu xaalis assurance nañu kaas. ndax lepp lo gis rek dafa am lu ko sabab tay problème mu sey ak ñak jëruñu mo sabab ñom ñu xamne ñoo ngi ci danger te wax dëgg nak bour suñu waxtaanee dëgg ñaari ponkal yu def 100 et quelques kilo nek ci digg geew di doranté nga war leena arbitrer dafa wara fekk ñu dila fay liko jar en même temps soy ñibbi nga am sécurité bi lay yobbu ba sa biir kër ak bi lay jëlé sa kër indi la ba si biir stade ndax lamb dafa doy war